mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki internet mbokki dakar midi point net ñu ngi ziar ñëpp di leen ndokkale ci weeru koor wu tedd wi shahru ramadana al mubarak di ñëw ak yéen ci suñu ñetteelu jataay euh, suñu jataay passé ñi ngi ko yëkkatee woon ci te sa làmmiñ ci wax lu bon mu mel ni nag lu xawata nit ñi la lool làmmiñ moomu day mbokk yi bokk na ci organes yi nga xam ne ñoo gën a garaaw ci doomu aadama euh, nabiyullahi luqmaanul hakim euh, dañu wax ne sangam dafa mës a xëy ne ko dama bëggoon nga rayal ma benn gàtt andil ma organe bi ci gën a baax luqmaan dem rendi gàtt bi fees ko indi xol bi ak làmmiñ wi ca ëllëg sa mu ñëwaat mu ne ko demal nga reyaatal ma beneen gàtt indil ma la ca gën a bon mu demaat rey beneen gàtt indi xol bi ak làmmiñ wi sang bi ne ko bul ma jaaxal luxmaan démb dama la reyloo laaj la li ci gën a baax nga indil ma yii tey dama la reyloo laaj la li ci gën a bon nga indil ma yii mu ne ko inna fil jasadi la mudghatan ida saluhat saluha al jasadu kulluhu wa ida fasadat fasada al jasadu kulluhu jëmm ju ne am na organe bu ci nekk boo xam ne su baaxee rek lépp baax mais su bonee lépp échappé te mbokk yi làmmiñ kàmb la goo xam ne fi muy diri nit ñi jëme leen fa euh, maara day taalima subhanallah euh, mbokk yi làmmiñ moomu nag di ko garaaw koo xam ne bu xëyee cër yëpp dañ koy muslu yàlla ñu ko xëyati nga nag fu ñu dugg yaa ñu fa dugal fu ñu téye yaa ñu fa téye bu ay duma waree ci ñun sax yaa ñu ko yóbbee yow làmmiñ kon rikk waay làmmiñ na nga téye sa bopp na nga sàmm ci loo xam ne sa yoon néewu ci waaye làmmiñ daal fa tabaarakallaahu ahsanal na moom ko xool ni ko yàlla ràbbe sunu borom bi subhaanahu wa taala sax nga war a xam ne organe bu dangereux la dañuy wax ni lépp lu garaaw rek dafay xonq ndax mooy signal bi euh, làmmiñ boo ko xoolee dafa xonq ñu ne déeta waaye yàlla daf ko gasal tunnel daaj ko ca biir ak siddit gu dëgër ñu ne déetawaay yàlla daf ko ràbbe am ciiñ am ciiñ boo demee ci boo demee ci estomato yi bu ñuy buddi bëñ da ngay gis ne seringue bi nga xam ne moom la ñuy jam ci siiñ mi sax dañ koy dugal ci benn capsule boo xam ne weñ lay doon sinon day toj kon siiñ dëgër na ñu ne déetawaay yàlla nga ko ràbbawet ràbbewaat ay bëñ mu nekk ay yax yu dëgër ci doomu aadama ñu ne déetawaay yàlla wërale ko am tuñ moom moom làmmiñ moomu garaaw gu mu garaaw moo tax ñu dugal ko foofu bari na lu nit màng ci xeetu yiw làmmiñam a ko ko may waaye bari na lu nit màng ci xeetu bàkkaar làmmiñam a ko ko yóbbe te bëgg nañ ko fekk làmmiñam ci bëccëgu weeru koor am na suñu benn maam bu baax alxaaji mansour si radiallahu anhu di sayidul qawmi daana wax ni kuffal lisaani wala tutliqhu dahadarin an iqtiyaabi namimatin wa buxtaanin daana wax ne fegal sa làmmiñ wi bul ko boyal mu mel ni gaynde ñeloor nga xam ne dafa dugg ci àll bi yam ci gàtt yu mën a fàdd day rabajey dem rek mu ne ku boyal sa làmmiñ dafay mujj soppi ko gaynde fàddal la boppam mbokk yi kon làmmiñ garaaw na euh, làmmiñ nag mbokk yi boo ko fegee ci bëccëgu weeru koor li nga doon wottee wax ju bari nga wottee ko jàng alquran wottee ko salaatu ala nabi wattee ko istixfaar wattee ko tudd yàlla yaakaar naa moo ëpp tuyaaba fuuf sóob sa làmmiñ te deru gor euh, ibnu taymiya rahimahullahu daana wax ni law kuntu muxtaaban ahadan la aqtabtu walidayya li annahuma ahaqu wa awlaa bi xasanaati ibnu taymiya rahimahullahu yal na ko yàlla dolli yërmande daana wax ni su ma demee bay jëw nee na opte naa man jëw sama yaay ak sama pàppa parce que yowmal qiyaam bu ñu dee wàññi sama wiyu di ko sëfal keneen nee na ñoom laa gën a yéene sama tuyaaba ci walis keneen kon loolu lépp lim ci jublu woon mooy daw gravité làmmiñ mbokk yi làmmiñ nag boo ko fegee ci bëccëgu weeru koor am nga tuyaaba ju yaatu parce que yàlla wax na ci a uh, xadisul qudsi yonent bi jottali na ci xadis ne man lam yadaa qawla zuuri wal amala bihi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamuhu wa sharaabuhu yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ku mënta fekk sa bopp ci wax ju xaraam mënoo fekk sa bopp ci mbóosóor nee na jërutoon ngay xiif ak a mar parce que doo ca am dara yal nañ ci yàlla musal yal nañu yàlla defal dégg ab topp ñu di leen jox jig daje ci beneen jataay ci dakar midi point net ci seen émission shukran wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu